Mamadou Ndiaye ayca Mamadou Ndiaye la ñuy jéem a jokkool kon bu ko defee mu wax ñu euh, naka la Aliou Cissé ak euh, euh, gaynde yi di préparer match suba bi déjà ñu ngi ñuy xamal ni xaalis bu bëri gouvernement bu Sénégal freiné na ko jëm ci match amicaux yi par exemple match bi ñu nar a amal contre Ouzbékistan foofu ca Casablanca ak bi ñu nar amal fan yi di ñëw ca fi nga xam ne ni mooy la Havre ca France ak dëkk bi di Bosnie record par exemple nee na gouvernement bu Sénégal dépensé na ci enveloppe bu toll ci 118 millions francs CFA am na sax ñu ne cent quinze mais record moom euh, nee na euh, de francs CFA muy xaalis bu bëri boo xamee ni euh, ci sunu gafa la koy jëlee donc ñoom it bu ñu góorgóorluwul ba def lu baax du baax ci ñoom de voilà Cheikhou Kouyaté surtout yow laay waxal mais on a confiance en eux puisque boo xoolee rek xam ni tax na ñun ñëpp ñu am confiance alors Mamadou Ndiaye match bi suba lay doon ndax gaynde yi jóg nañu pour dem def seen entraînement bu njëkk foofu ca Casablanca. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu comme ni ñu ko doon waxee. nuyoon nañu sànq demal rek. bàyyi ma mu waat rek. maa ngi nuyoowaat d'accord. voilà ni nga ko waxee euh, tey ci suba si gaynde dañuy noppalu li ñu ciy jot comme information xam ne ñu ngi fi yegg ci ci six heures du matin ñu ngi fekk benn sedd bu bu métti parce que cinq degré la thermomètre affiché mais tey ci suba si ndaxte gannaaw entraînement bi ñu amaloon démb ci ngoon tey ci suba si dañuy noppalu suba tey ci ngoon gi nag euh, la ñu bu 17 jotee la ñuy fas yéene amalaat seen entraînement bu mujj balaa match bi nga xamante ni fas yéene nañ ko am suba bu 17 jotee fii ci stade bu Mohamed V bu Casablanca Sénégal war ci jàkkaarloog ñi nga xamante ni mooy Ouzbékistan muy premier match amical ñuy waajal. Euh, yoonu Russie li liñ ci gën a mën a jàpp rek mooy comme ni ko journal record bi waxee tey li mu titré mooy Aliou Cissé fas yéene indi ñu bees ñi nga xamante ni woo na leen ci tanière bi bu ñu fàttalikoo 30 joueurs la woo ak à l'exception de kii di Idrissa Gana Gueye nga xam ne dafa ñëw ba ci ba fii daal di gaañu daal di delluwaat euh, club am di Everton mais ñu ci mën a jàpp rek suba la match bi bu 17 jotee fii ci stade bu Mohamed cinq ak tey jii ci ngoon bu 17h jotee aussi gaynde yi dinañ amal seen entraînement bu mujj tey ci suba si nag dañuy relax noppalu récupérer bu baax xool ban yoon lañ mën a jaar pour ngoon entraînement bi mu nekk entraînement bu yomb bu yem rek ngir waajal match suba bi. jógee ñu ngi jëm euh, euh, France Le Havre exactement nara amalaat euh, beneen match amical ak waa Bosnie Herzégovine. effectivement boobu bu ñu paree match 23 bi vingt 24 incha allah. la ñuy xëy daal di dem fële ca euh, Havre daal di dañuy jaar Paris jubali fële ca Havre ngir waajal beneen match bi nga xamante ni moo nekk ci programme DAC FIFA bi mu ñaari match amicaux yoo xam ni suñu gaynde yi fas nañu ko am ngir euh, waajal li nga xamante ni mooy euh, euh, coupe du monde bi nga xamante ci la ñu jëm moom la ñu dëgmal mais li ñu mën a jàpp rek ci waxu Aliou Cissé yi nga xam ni semaine entraînement yi presse bi relayé nañ ko mooy dafa bëgg def ci bopp xale yi déjà présent expérience bi mu am ci atum 2002 ak équipe nationale bu Sénégal mu def ko ci génération pour sax ñu mën a romb quart bi nga xamante ni Sénégal bu ñu fàttalikoo amoon na ko ci atum bu loolu weesoo mondial bi 2018 euh, ce sera au mois de juin ci fi nga xamante ni euh, mooy euh, Russie comme 98 Youssou Ndour ak Axel ñoom ñoo defoon hymne officiel bi ren coupe du monde bi Jason Derulo la ñu tànn pour mu woy hymne boobule. waaw loolu loolu nga wax moo am gannaaw yu Ndour ci atum 98 bu ñu fàttalikoo Shakira ci atum 2010 am na Pitbull ci atum 2014 bi nag euh, Jason Derulo moom mi nga xamante ni moo fas yéene présenté lii lii di présenté na sax d'ailleurs lii di hymne coupe du monde bi muy nekk benn chanson boo xam ñu ko tuddee color mooy couleur. célébrer avec énergie et passion loolu la way boobu di wund ngir rek gën a ñoŋal xam nga coupe du monde ñoo baaxoo di génne benn way bi nga xamante ni à chaque fois mooy nekk hymne bi nga xam moom lañ duppee coupe du monde bu football nekk na li nga xamante ni euh, chanteur R&B bi jël nañ ko ren ci atum 2018 bi ngir mu gunge coupe du monde bi fële ci Russie 2018. je pense que tu peux rester en ligne comme ça ñu déglu ci un bout. waaw mën na mën na nekk. Aïcha on écoute ensemble bi mooy hymne officiel coupe du monde 2018 lay amalee Sénégal di ci bokk. valeur wala color wala color tout dépend de noo ko bëgg a prononcer comme je dis toujours avec certains mots donc mooy hymne officiel bu coupe du monde 2018 euh, nara am ca euh, Russie n'est-ce pas Mamadou Ndiaye et puis euh, en dehors de hymne officiel bi parallèlement artistes yu bari dañuy génne ay woy pour seen équipe nationale dégg nañu ni Youssou Ndour am na bu mu def ak Black M keroog tegal na ko ay Aïssatou Diop Fall juste ci bi ñuy face to face mooy face to face bi besoin ci la ko Youssou la ko waxoon et en France aussi boo demee am na yeneen artistes Tall entre autres euh, ñu génnee ay woy pour accompagner euh, seen ay équipe jëm ci mondial 2018 bi mais en tout cas ak lu ci mënti am rek am nañu yaakaar quand même euh, ci sunu équipe nationale bi donc ñaari match amicaux tey ak Ouzbékistan et puis di ngeen dem fi nga xamante ni mooy la Havre ca France pour jouer ak Bosnie est-ce que gisagum nga suñu gaynde yi Mamadou Ndiaye. waajal nii ma fa gis Euh, jot information yi jot am dañ ko partagé ak ñi nga xam ne ñii ñenn ci benn la wala ñenn ci suñu confrères yi. voilà maa ngi nii di wàcc euh, ngir dem seen hôtel bi nga xam ne ñu ngi fii ci Casablanca. ngir gisante ak ñoom ñenn ñi mën a joxe ay euh, xibaar wala jël leen ay interview. ngir mhm. partagé ko ak téléspectateur yi. super match bi donc à suivre sur RFM demain ak yenn ci ay info yu ci jëm ci télévision Futur Média balaa ngay dem nag il faut que ñu wax ak yow ci Ronaldinho mi dégg ni dugg na ci euh, politique euh, comme daanaka magam jiitu ci football foofu ca Brésil Pelé mosoon na nekk ministre des sports euh, Romario ak Bebeto paraît-il ñoom ñu ngi nekk ci parlement bu Brasilia alors moom il est à la retraite def comme sportif yu bëri dugg ci politique waaw dekkul gulet foofu ci Brésil ah ndaxte d'habitude dañuy gis ancien euh, footballeurs yi wax nga ko Ron ki nga xam ne mooy Romario ak euh, Bebeto ñoom ñëpp dañuy euh, dañuy dugg bu baax ci politique li nga xamante ni ngir joxe wane beneen visage fii ci Afrique bu ñu xoolee George Weah am na mën nañu jàpp ni am na ñeneen ñi mu inspiré parce que région du waaye récemment lañ ko élire euh, fële ca euh, Libéria pour mu nekk fa président moom ancien footballeur keneen koo nga xamante ne mu jaar ci même club bi mu jaaroon muy Paris Saint-Germain di Ronaldinho di brésilien moom nekkoon ballon d'or ci atum 2005 euh, moom tamit dafa annoncé ni dafay bokk ci politique fële ca Brésil d'ailleurs parti parti républicain bi nga xamante ni Euh, maire benn maire bu tudd euh, mën nañu Mario Grisella moom moo fas yéene ànd ak moom ngir dugg ci li nga xamante ni mooy politique comme ni ñu koy waxee comme ñeneen ñeneen moromam yi nga xam ne ay brésilien la ñu nekkoon ay ancien champion du monde ñoom tamit bëgg a bokk ci euh, dugg bu baax ci wàllu politique. nekk na xibaar bi nga xamante ni ñi ko partagé bari na ngir rek wane ni rien n'est impossible comme ni ñu koy waxee à chaque fois ci wàllu footballeur yi nga xam ne dañ leen di gis bu ñu bàyyee seen carrière ñëw ci wàllu politique. Ah, dañuy def reconversion souvent ci wàllu politique El Hadj Ousseynou Diouf ambassadeur Khalilou Fadiga ambassadeur euh, Georges Weah président bu Libéria euh, Pelé musoon na nekk ministre des sports wax nga ko léegi nii Romario ak Bebeto euh, ñoom ñu ngi siéger ci parlement bu Brasilia et puis paraît-il que moom Ronaldinho mën na nekk candidat ci élection générale yi nar a am foofu ci Brésil ce sera au mois d'octobre on finit avec toi comme d'habitude actualité internationale bi je newu fii mais bi euh, keroog ñu ngi doon waxtaan ci euh, écoliers yi nga xamante ni tegoon nañu leen loxo ci Nigéria ak waa Boko Haram il paraît que ñoom libéré nañ ci quelques écolières. waaw effectivement am na ñu ñuy libéré ñi nga xamante ni comme ni ñu koy waxee bring back out out euh, li nga xam ne xewoon na fi ci fële ca Nigéria mooy jigéen ñooñu lu ci téeméeri soxla yi nga xam ne dañ leen jàppoon foofu ci Nigéria. gannaaw ba lañ leen euh, dañuy wax ñu am ci am solo takku bu lim bu am solo maanaam mu toll ci vingt cinq sax la ñu wax écolières yi nga xamante ne bi libéré nañ leen nekk na xibaar boo xamante ni tamit ñu ko saluer surtout ci autorité nigérienne yi nekk na euh, bari na nekk na ñi xam ne à chaque fois dañ doon critiquer autorité nigérienne bi génn di yéex a génne ñi nga xam ne mooy communiqué bi eh, xibaar bi génnee eh, ñoom dañ ko teel a génn joxe li nga xam ne mooy xibaar bi nekk na lu am solo li nga xamante ni à chaque fois eh, population bi gis nga monde bi nu mu génn ni mu génne woon ci at yi ci ginnaaw ngir rek défendre li nga xamante ni mooy benn cause bi mooy Bring Back Our Girls nga xam ne gisoon nañu Nigéria dañoo tàmmoon di fi nga xam ne waa Boko ko di jël ay écolières yi nga xamante ni leen yóbbu wala leen nekk di leen def ay di leen dugal ci ay réseaux donc ñoom ñu ngi leen tegoon loxo le 19 février ba le passé waxoon nañ ko ci yeewu leen bi finalement libéré nañ ci quelques jeunes filles euh, parce que nee nañu dañ leen jàpp ba pare mais bi ñu seetloo ñoom ay jullit la moo tax ñu waat leen ci buntu école bi ñu leen jëlee woon ci dëkk bu nekk foofu ca Nigéria et eh, Mamadou. oui nous sommes fiers de toi ah. merci. ah ouais na nga fexe nag ba boo ñibbisee bugguma bugguma bugguma semaine France bul soppi ni ngay waxee de. <laughs> pardon. Elage nee na nga nuyul ko Aïda Wagé Garmi nee nga nuyul ko Aïda Wagé. Aïda léegi. te te sama yóbbante bul ko tagal. waaw ko tagal bul ko tagal parce que elle m'a appelé elle ah. euh, moom deful ne waa Italie dégg nga. waaw kon ba ñu ba ñu ba ñu gisee ci jàmm incha allah. waaw waaw waaw voilà merci Mamadou Ndiaye je rappelle que yaa ñu teewal foofu ca Casablanca nar a àndandoo itam ak sunu gaynde yi ci match bi nga xamante ni daañu ko amal ca euh, France et puis bonne chance ah. c'est ça am na jom nangu naa liggéey xale la waaye fexe na euh, ba ñu teel koo ràññee ci métier bi mënuñu lu dul ñaanal ko et puis on lui souhaite beaucoup de chance parce que fierté famille yeewu leen la moom Mamadou Ndiaye càmmiñu Mam Fatou Ndoye Mam Fatou actuellement qui est en train de faire le tour du monde. monde euh, di tase ak sunu gaynde yi nga xamante ni ñooy waajal euh, coupe du monde 2018 El élage dem rek am solo